rajo benn FM cent six point mu ci jàppalante di ci lëkkaloo groupe bi di alxaqu thabitun fu ngeen mën nekk àddina bi rek dañuy déglu ñu ngi leen di nuyu di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñu dellusiwaat ak yéen ci seen jataay bi ñu tuddee taarixul islam muy jataay boo xam ni dañ ci nafar di ci fàttaliku démbi lislaam ak jaar-jaari lislaam ngeen baaxoo caan ak seen mbokk Mouhamadul Moustapha Ndiaye ñu nekk nag ci suñu numéro fukk ak ñett muy treizième numéro bu ngeen fàttalikoo ñu ngi nekkoon nag doon waxtaane almarxalatu almakiya tamoo di état bu makka ba ba ni yonent bi salaatu wasalaam gisee ak mbooloo mu bàyyi ko woon ca yathrib madina ñëw makka yonent bi alayhi salaatu wasalaam daa di ak ñoom daa waxtaan ak ñoom ñu nangul ko te tuub dugg ci lislaam ba yonent bi alayhi salaatu wassalaam daa yabal ki ñuy tuddee Mus'ab Umayrin mu bàyyi ko ca Makka dem ca Yathrib te mooy Madina ngir lan jàngale fa lislaam jàngale fa alquraanul karim waaye jàngal ju liiti Madina seen diine mbokk yu tedd yi xam ngeen ni la ñuy tuddee bayatul aqabatil ula mi ngi amoon nag ci atu fukkeel ak ñaar te moo ginnaaw bi yàlla yónni yonente bi alayhi salaatu wassalaam ba mu am ca makka fukki at ak ñaar ci la li ñuy tuddee bayatul aqabatil ula ca la amoon te moo di ni fukki nit ak ñaar ñu bayiko ko yatrib te bul fatani yatrib mooy tur bu bu madina mana madina laata fa yunnati bi alayhi salatu wasallam di gaday di dem ñang ko dunu boye yatrib bi lolu amé nak fukk ak ñaar ci wa yatrib dal di nangul yunnati bi alayhi salatu salaam ta moo di jaayanteeg mom dugg ci l'islam mu daal di tànn na kenn ca saxaaba yi nga xamante ni bi dañu gàddaay woon dem Xabasha te mooy ku ñu tuddee Mus'ab ibnu Umayrin doonoon ndaw waaye ndaw lu jàmbaare ndaw lu xam diineem waaye ndaw lu am pédagogie mën a jàngale lool l'islam yonente bi alayhi daal ko yebal ca Madina ndax xam nga ni fukki nit ak ñaar yi tuuboon jaayanteeg yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñaar ñi ñu ngi bokkoon ci giir gi ñu tuddee al aws fukk yi bokkoon ca gir ga ñuy tuddee xasraj bul fàtte ni madina yathrib bu yàggoon dëkk la boo xam ni al aws ñoo ko dëkki woon muy aw xeet ab famille ak xasraj muy ab xeet ab famille ak yahud yi nekkoon ca yatrib ñoo nekkoon ca yatrib laata faa yonente bi alayhi salaatu salaam di yónni Mus'ab ibnu Umayrin ngir mu fay jàngale lislaam di ko jàngal nag fukki ak ñaar yu tuub dugg ci lislaam di ay jullit yi njëkk nekk ay jullit te dëkk ca Madina bi amee xam ngeen ñoom bi ñuy jaayanteeg yonent bi alayhi salaatu salaam ñoom fukki ak ñaar dañu jaayante ak moom ci ñetti yëf te moo di baayacuuhu ala samci wa taa dañu jaayante ak moom ci déglu ndigalam ak jëfe ndigalam déglu ndigalam ak jëfe ko ca saasa waaye dañu jaayante ak moom itam ci Euh, wootee jëmale ci yàlla te mooy tasaare lislaam ca Madina wante dañu jaayante ak moom itam ci aar yonent bi salaatu wasalaam kon ñetti mbir lañu jaayante ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi ci njëkk mooy di déglu ndigalam ak di ko topp ñaareel bi mooy di tasaare lislaam ca Madina ci seen kem kàttan ñetteel bi mooy bu yonent bi alayhi salaatu salaam gàddaye ñëw ca Madina ñu di ko protéger di ko sàmm di ko aar nañuy aare seeni njaboot di ko aare seeni alal di ko aare seeni seeni jigéen مصعب بن عمير رضي الله عنه على أسعد بن زرارة bi Mus'ab ibn Umayr demee ca Madina ma nga wàccoon ma nga daloon ca kër ku ñuy tuddee As'ad ibn Zurarata këram la Mus'ab ibn Umayr daal di daloon ba mu demee Madina ngir jàngale fa alquranul karim ngir jàngale fa lislaam ma nga daloon ca kër ku ñuy tuddee Asad ibnu Zurarata moom nag Musab Musab ibnu Umayrin ña ngi ko doon tuddee ca Madina ñu ngi ko tuddee al muqri al muqri mooy kuy jàngale alquran kon nga dégg ci ni saxaabi bi njëkk laxas dem jàng la ji alquran njëkk doon ab sëriñ daara ci kaw suuf mooy ku ñuy tuddee musab ibnu umayrin doonoon ndaw kon ndeke ndaw ñi tam war nañoo am taxawaay bu rëy ci tasaare alquran ak def ko ci doomu jullit ñi ak jëfe ko loolu moom képp kuy ndaw te jullit xamal ni war la nako musab bin umar don defe ca madina wa dhahaba yawman asad bnu zurarata wa maahu musab bnu umairin ila bustanin min basatin bani abdil ashhal أحد بطون الأوس فجلسا فيه واجتمع حولهما عدد من الذين أسلموا فرآهما سعد بن معاذ وأسد بن حضير وهما يومئذ سيدا بني عبد الأشهل ومن سادة الأوس فقال سعد بن محاذ لأسد بن حضير لا أبا لك انطلق إلى هذين الرجلين اللذين قد أتيا دارينا ليسفها ضعفاءنا فازجرهما وانههما عن أن أتيا دارينا فإنه لولا أن أسعد بن زرارة مني حيث علمت كفيتك ذلك وهو ابن قالتي ولا أجد عليه مقدما فأخذ أسد بن حضير حربته ثم أقبل إليهما فلما رآه أسعد بن زرارة قال لمصعب بن عمير هذا سيد قومه قد جاءك فأصدق الله فيه mbokk yi am na bis nag bi Mus'ab ibn Umayr nekkee ca Madina waxoon naa léegi ma nga daloon ca kër ka ñuy tuddee euh, As'ad ibn Zurarata këram la wàccoon moo nekkan daal titëram moo ko dalaloon doonoon njaatigéem ca Madina benn bés saad ibnu zurarata daa di ànd ak umayrin ñu génn madina dem ci benn tool ci tooli waa bani abdul ashhal bul fàtte ni dañu fonkoon lool mbirum mbay surtout nag ci wàllu ay tàndarmaak ay tooli dër bi amee ñoom ñaar ñii di saad bnu zurarata ak musab bnu umayrin dem ci benn tool ci tooli ñu tuddee bani abdil ashhal nekkoon ca madina doonoon ñenn ci butoonu aws maanaam doonoon ñenn ci giiri waa aws biñ fa toogee ñi tuuboon dugg ci lislaam nekk ci madina daa di ñëw daa di wër Saad ibnu Zuraarata ak Musab di déglu la wax biloolu amee nag ku ñu tuddee Saad ibnu Muhaadin ak ku ñu tuddee Asid ibnu Xudayrin ñoom ñi ay kilifa lañ doon ay notable nekk ca Madina doonoon kilifa gi gi ñuy tuddee bani Abdul Ashhal ñoom ñaar ñii ñi ngi bokkoon seeni kilifa te bul fàtte ni ñoom itam bokk nañ ci kilifa yi ngir ga ñuy tuddee al aws ndeysaan nag Mus'ab daa di jàngal Aseed Xudayrin lenn ci alquran te mbokk yi xam ngeen ni arab yi ñu am balaaga lañ mën a déglu ay wax lool te xam ay wax waaye xam nga alquran ton bi mu am balaaxa bi ci nekk neexit bi ci nekk ci ku dégg dara ci arab soo ko déggee doo ànd ak sa sago masalan da nga jël benn aay rek aoudu billahi min alshaitan arrajim wa huwa alladi fi lsamai ilahun wa fi l wa huwa alxakimu alalim si mu ni borom bi subhanahu wa taala mom day bour la ci bir asaman waye bour la ci bir souf mom dal ma ki nga xamanteni bi hakim la ku xam limi def la lépp lu mu def rek amna lu tax mu def ko lo xamni nit ñi xamuñu ko waye nak alim la dar ci mbiri jam ñi ump ko xam nga waxin bi dafa daw yaram ku deg arab boko deglo day jàpp sa xol وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم فقال والله لقد عرفنا في وجهه الإسلام في إشراقه ثم قال ما أحسن هذا الكلام وأجمله كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين فقال له تغتسلوا فتطهر ثوبك ثم تشهدوا شهادة الحق ثم قال لهما إن ورائي رجلا إن اتبعكما لم يختلف عنه أحد من قومه بيلو الأمي ليسان مصعب بن عمير دادي جانج لن شي القرآن شي نوبي أسير بن حضير القرآن ليملة مثلا جل الآية بي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سنجلي نمو دويرم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نيسان بيم ديغي القران خام لان لا مبوكي Eh, Zurarata ak Musab ibn Umayrin ñoom dañuy wax ni daal xam nañ ci kanamu Asir ibn Xudayn bi mu ñëw kanam gi ni mu leere ni mu bellee xam nañ daal kii bu ñëwee dana dugg ci lislaam bi Musab ibn Umayrin jàngee dara ci alquran ci noppi Asir ibn Xudayrin daf ko japp muni wax ji day dar meluni wax ci ka rafet musuma deg sama nop dal wax ju neexi ni ji wax alquran lay wax te wax na deug de muni mom asir muni waw ku bëgg dugg seen mbir nan lay def manam fa la di jaar ba mën ci seen mbir mi ngeen nek ndaysan ñoom ñaar ñëpp muy As'ad ibnu Zurarata ak Mus'ab ibnu Umayrin ñu daal wax Asid ibnu Xodri ni ko moom daal ngay sangu rek labal sa yére yi daal wax nag ay baat yu gàtt te mooy tumma tashhada xaq nga tudd nag baat di seede te mooy ashhadu an laa ilaha wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh allahu akbar ñu ne ko daal moom daal baat yu gàtt yi rek ngay wax léegi nag bokk ci mbooloo mi dugg ci lislaam ndeysaan moom mu ni man day am naa ku ma àndaloon ma nga toog ci xaar moom day bu ngeen fexee ba mu dugg seen mbir mii ngeen di woote xam naa ko ko am baat la kilifa la ci aw nitam ñëpp ay maase tuub ci ay mbokkam dugg ci li moom moom daal bu ngeen fexee ba mu tuub moom dugg ci lii ngeen di woote nitam ñëpp ay bàbbeeku fekk si leen dugg ci lislaam ndekete woote Asiit ibnu Xudayrin dafa tëral plan dafa lu bëgg xam na ni euh, euh, xam na ni Saad Saad ibn ku tàng la ku ku ku bëgg mbirum famille la te gëm mbirum géñoog mbirum meen moom daal ku bëggu njàmbaar la te mën a sàmm na ak a défendre ay bokkam bi loolu amee mu ne bëreet jóg léegi nag wutali ca gaaya fan la wutali ma nga wutali ca. Euh, Asad ibnu Zurarata ak Musab ibnu Umayrin bi mu weesoo mbooloo mi rek sawaay daal di jóg daal di ànd ak moom Asiir mi ñëw daal di àndaat ak moom xam na ni dana dem bi mu ñëwee ba ci ñi toogoon te mooy Musab ibnu Umayrin jàngalekatu Alqur'aan ak kan Asad nu Zurara As'ad ibnu Zuraar mi nga xamante ne bii moo ko fatoon doon njaatigeem nekk titëram ca Madina bi Saad ibnu Muaaz ñëwee daal taxaw bi mu taxawee di xool mu wax ko wax ko la mu waxoon Asyad ne ko ndax doo toog déglu su fekkee li nga dégg neex na la nga ànd ci ñun su fekkee li nga dégg daf la naqari daf la daf daf la daf la déranger doo ko déggati sa nopp ndeysaan mu daal di toog ni ko yow day ku maanu nga ni nga waxee nii daal sa wax daal ci dëgg-dëgg maanu na lool daal di toog samp moom tam euh, xeexkaay bi mu yoroon sama gànnaay ma daal koy samp comme na kal def ma daal di toog Mus'ab daal jël kàddu gi wax ni ko man day Madina la ñëw bayiko ko ca makka ci ndigal yonente bes bi ngeen dégg muy muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam moma envoyé fi ma ma représenter ko ci madina ngir lan ngir jàngale fi l'islam jàngale ci fi alquranul karim daal koy wax nak l'islam lan moy ay principe yi l'islam am lan mo taxajuk l'islam Dari jang len ci alquran mu dekk ko mu ne ci deug deug mom tam dara jaar rek fa mbokk ma jaaran daani walé ku bëgg dugg seen diiné ji ngeen wotalé nan lay def ñu ko amam ah, yom na da ngay sangu da ngay sol yu lap da ngay wax ashhadu an la ilaha illallah. allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ira bokk see wax rek legi yaak ñun ñuy yoyam sa deret léegi kenn sañatu ko tour ci sa alal kenn sañatu ko jël ci lu dul yoon sab der kenn waru tëje wax genn kaddu gu ñaaw kon nak day sàmmalaat tu mom tam dugg ci l'islam kon legi nak yënga l'islam mi ngi tambalé propage wu commencé di yaatu ca madina ndax ngonkay moy kilifa yi ya newoon ci dekk ba legi ñi ngi dugg ci l'islam ka njëkk a dugg ci kilifa yi xam nga ne mooy kan asid ibnu xudayrin ak kanaat saad ibnu muhaadin ndeysaan muy lu daw yaram moo di daal juróom-ñaar fukki nit daal te mooy ah juróom-ñaar fukk ak ñett ci ay góor ak ñaari jigéen juróom benn fukk yi ak ñaar ci góor ñi ña nga bokkoon ca ñu tuddee Xasraj bul fàtte ni ñu yàgg lañ Madina Yasrib fukk ak ñaar fukk ak benn bokkoon ci Aws ñoom tam bul fàtte ni ñu yàggoon leen ca Yasrib boo ci boolee nag ñaari jigéen ñi moo lay jox fukki góor fukki doomu aadama maa ngi juum juróom ñaar fukki doomu aadama ak juróom yoo xam ni daal ci atu fukel ak ñett ci lañ joggé yatrib ñew makka ngir lan ak ci takaba ga bi ñewé nak ñom ñi ci lañ ak yoonenté bi alayhi salatu wassalam loolu la tuddé bay'atul aqaba at-thaniya ñaareelu jaayante ñaareelu pact bi am digënté yoonenté bi alayhi salatu wassalam ak lenn ci wa yasrib muy juróom ñaar fukki góor ak ñett ak ñaar jigéen muy juróom ñaar fukki nit ak juróom léegi tuub nañ dugg ci lislaam jaayanteeg yonent bi alayhi salaatu ci lan ci déglu ndigalam ak def ko ci lan ci tasaare lislaam jàngale ko ca Madina ci lan ci aar yonent bi alayhi salaatu bu ñëwee ca Madina nañuy aare seeni alal di ko aare seeni doom di ko aare seeni seeni jigéen mbokk yi tedd bii loolu amee ndeysaan asiyet daa di nag daa sempi ngànnaay bi mu sampoon mu sempiko ko daa nag ca saad ibnu muhaadin ak aw fekk ña nga toogoon ca penc ma ca Madina bi euh, bi muy ñëw nag moom Asir ibnu Xudayrin saadun daal di koy seen muy ñëw mu ni ñim toogaloon giñ naa ci yàlla ni Asir mii day kanam ga mu deme woon andiwaatu ko maanaam ba mu fi jóge daal yéen a jëm amoon ba mu fi jógee daal ne kanam gi meloon ak bi mu ñibbi si nii kanam gi am na changement c'est-à-dire wane neen léegi tuub na ndax lislaam boo ko boo ko nangoo a boo ko nanguwul lu doon benn jamono yi nga nekkee yéefër ni ngay mel saxaar kanam ak boo tuubee nangul yàlla ni ngay mel sa kanam du doon benn moo tax daal kanam ga mu yóbbu moom moom asiyet andiwaatu ko bi ñu laa taxaw moom assiette taxaw ci penc mi ci nit ñi saadun toog aw nitam toog saa daal ni ko waaw loo def sagaaya mu ne ko ah man waxtaan naa ak ñaari góor ñële waaye giñ naa ci yàlla ñoo am ñu benn problème gisuma ci ñoom benn jafe-jafe ne wax dëgg yàlla moom daal en tout cas tere na leen daal neen bu ñu jaar suñu bunti kër moom lu man a xew ñoom nag nee nañu li bëgg rek la def waaye nag asin mooy wax dañ ma wax dañ maa xamal ni daal bani xaarifata ñoom tam aw nit la bokkoon ca aws ndax dañoo wax ni ña nga wuti ca kër assiette ngir ray ko ndax lañ xam nañ ni daal moom yow mii di Saad ibn sa doomu sa doomu tànta la sa doomu yaay bu ndaw la te xam nañ ni moom moo moom moo moom moo ànd ak kii di Musab ibnu Umayrin léegi nag sax daa ni bërét mer lool tàng jër ba di soppee kanam gi tàmbalee sël ngir lim dégg nii bani xaarisata te bul fàtte bari xaarisata ñi ngi bokkoon ci aws ñoo wutali kër asad asad ibnu zurarata ngir lan ngir faat kanam ذاع في يثرب خبر الإسلام ودخل كثير من أهلها فيه وفي العام الثالث عشر من البعثة قابل ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الحج فبايعوه على السمع والطاعة وعلى الدعوة إلى الله وعلى حماية الرسول صلى الله عليه وسلم فسميت هذه البيعة بيعة العقبة الثانية مكي قم جيني الإسلام نكليجي أ ميدف بز ah tasaaroo na léegi nag ca Yasrib ñu bari nag di dégg ni daal kilifay dëkk bi ñu ngi bàyyi seen ceet doga ñu ngi bàyyi seen jaamu xaram ga ñu ngi dugg nag ci diine ji ñuy tuddee lislaam ñu baree bari ci waa Madina léegi ndaa tuub nañ dugg nañ ci lislaam léegi Yasrib ci atu fukkeel ak ñett maanaam ginnaaw bi yàlla yónnee yónnente bi alayhi salaatu wasalaam ba mu am fukki at ak ñett am na mbooloo mu bàyyi ko woon ca yasrib ñëw ca màkka ngir lan ngir aj si ca xërëm ya ngir aj si ca xërëm ya léegi bi ñuy ñëw am na ci ñoo xam ni ay yéeféer lañ mushrikuun ñoo xam ne dañuy bokkaale yàlla am na ñoo xam ne nag ay jullit jullit lan duñu bokkaale yàlla te dañuy jëfa ay ndigalam dañuy bàyyi ay tereem te jëmmam tax jëmmam mi ngi xewoon ci atu fukkeel ak ñett nga xam ni daal juróom-ñaar fukki nit juróom-ñaar fukki góor ak ñett ak ñaari jigéen muy soixante quinze personnes maanaam juróom-ñaar fukki nit ak juróom juróom-ñaar fukk ak ñett ay góor lañ ñaar ñi ay jigéen lañ ñaar ñi ay jigéen lañ jigéen ñi mooy kanakan ak kan ka ñuy tuddee nasibatu bintu kaabin min bani najjar wa asmaa'u bintu amrin min bani salamata ñaar jigéen ñi raxoon góor ñi mooy ku ñu tuddee nasibatu doonoon doomu kaab bokkoon ci ñu ñu tuddee bani najjar nekkoon ci yasrib keneen ki mooy kan ku tudd asmaa'u doonoon doomu amrin bokkoon ci ñu tuddee bani salamata nekkoon ca yasrib moom tam kon daal yëg nga ni am na ci waa xasraj ñu bàyyi ko yasrib ñëw madina am na ci waa aws ñu bàyyi ko yasrib yasrib ñëw ñëw madina ànd nag seen seeni seen ñaari jigéen mooy nasibatu ak asmaa'u nasibatu ak asmaa'u nga xam ni kon daal yi fi léegi mi ngi tàmbali nag di am aw tur fa musab ibnu umayrin awa tajlisu fa tasmaa fa in radayta amran qabiltahu wa in karihtahu kuffa anka ma takrah musxab nag ku jëkk wax la te mën a wax xam lool ni ñuy waxee ak kilifa am pédagogie lool ci mën a jàngale lislaam mu daal di waxanteeg asiyat ne ko waaw ndax doo toog déglu li may wax seen nga wax ba ni mu am solo ndax doo toog déglu li may wax kalaamun tayyib wax ju neex joo xam dafay jàpp xol mu ne ko waaw ndax doo toog rek déglu tuur ci li may wax su fekkee sedd na sa xol neex na la a ah, nga jàpp ko nangu ko su fekkente ma gis nga ni neexu la ah su boobaa itam nag دوك ديغت مكو دوك ديغت مكو تسنب قال عن صفطة ثم ركز حربته وجلس إليهما فكلمه مصحب بالإسلام وقرأ عليه القرآن لكن أسهد دي نيكو أعيو دي وحدق يالكم ما نوغا وحدق يالكم وحدق يالكم xel mën na koo jàpp ku maanu ko daal ci li nga waxee nii mi ngi yoroon benn ngànnaay mu daal di samp ngànnaay bi mu yoroon moom assiette samp ko ko cap samp ko ci suuf daal taxaw daal di bi mu toogee nag muy déglu Mus'ab ibnu Umayrin Mus'ab daal ak assiette ni ko daal lislaam moom man moom tax a ñëw maanaam jàngale lislaam daal moo tax ma bàyyi koo ca Makka ci ndigalu yonente bi alayhi salaatu wasalaam ñëw fii ci Yasrib ngir lan jàngale lislaam ak jàngale alquran waxu borom bi subhaanahu wa taala ba tey mbokk yi ñu mën a jàngewaat ci diggante Mus'ab ibnu Umayrin ak Asid ibnu Xudayrin ci bim ñëwee yore ngànnaayam samp ko xas ko wax ko lu ko neex waaye teewul mu ànd ko dalam nag mu ànd ak ni ko waaw te toog déglu su fekkee may wax amal na la njariñ nga jël su fekkee gis nga ne amul la benn njëriñ tam doo ko déggati mukk mu bàyyi koo ci sama gémmiñ jëm ci say nopp allahu akbar loolu mooy lan mbokk yi mooy am noon kenn du ko rey dañ koy yey maanaam sab noon doo ko rey waaye danga koy yey danga nga ko jéem a convaincre ba mu xam ne li nga nekk yow moy dëgg gis nga dafa mujj moom bàyyi lépp lu mu woon dugg si lislaam ci kaw kàddu yam jokkalante digganteem ak Mus'ab ibn Umayr moy loo xam ne nag bind la boo xam ne képp ku ni ci àddina bi tey da nga jóg ngir defaral lislaam danga nga jóg ngir tasaare lislaam war nga roy saxaaba yi war nga roy yonente bi alayhi salaatu salaam ci lan ci am pédagogie xam ni ngay waxeek nit ñi xam li ngay wax bu wér xam bu weer li ngay wax waaye tam xam tam ni nga koy waxee waaye tam xam fi nga koy waxee dafa am solo loolu borom xam mag doon wax muy eh, ibnu qayim rahimahullah dana wax ni fiqhul waaqi wa fiqhul waajibi fil waaqi allahu akbar war nga xam waaqi bi waaqi mooy lan mooy réalité yi contexte bi nga nekk nii ban la da nga ko war baax xam tam contexte bi nga dund tam noo ci war a defee ak noo ci war a waxee war nga xam réalité yi dëkk boo nekk waaye war nga jëm xam tam nag réalité yi noo koy dundee noo koy dundee mooy lan noo ciy defee ak noo ciy waxee lu am solo la xam naa ko mbokk yi day mel nii euh, euh, dañuy wàcc suñu kàddu fii rek di sant baax a baax mbokk yi nga xamante ni bii ñu ngi jëloon seen temps temps nekk lu cher dañuy déglu ñu ngi leen di ñaanal yàlla di ñaanal yàlla suñu bopp lépp luñ ci dégg rekk nay lu ñu mën a jariñoo doon nañu jariñ suñu dunduk àddina waaye tamit nekk lu ñu jariñ suñu dunduk àllaaxira di nuyu mboolem auditeur auditrice nuyu soppe yi nuyu xarit yi nuyu am na jàmm yi ñëpp ñu ngi leen nuyu daal di nuyu baax nag borom rajo bii di eh, Serigne Mor Talla Fall yàlla na yàlla dëgëral ko ku am solo moom tam jar naa ñaanal baax a baax mbokk yépp xam naa li taxoon nag seen jotaay bii di taarixul islam gëj am mooy xat-xat yi ñu nekkoon am ay empêchement ndax xam ne doomu aadama noonu la ko yàlla bindee léegi day xat léegi day xat léegi moom ay gàllankoor moo taxoon na mu gëj na am waaye alhamdulilah rabbil alamin teesiwaat na muy taarixul islam ngeen baaxu ci ànd seen mbokk Mouhamadou Moustapha Ndiaye. ñuy sant baax mbokk yi technicien bi auditeur auditrice ñëpp ñu ngi leen nuyu daal nuyoo xol liñ jox dig daje incha allah wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. bi loolu amee nag ah ñaari kilifa yi ma wax léegi te mooy Saad bnu Muhaadin ak Ased bnu Xudayrin daa di seen. saad ibnu zurarata mu toogandoor ak musab ibnu umayrin julli ñi nekkoon ci madina daal di daal leen wër toog di déglu la wax bi amee saad ibnu muhaadin waxante ak xaritam bii di asid ibnu xudayrin ni ko laa aban lak laa abalak yow de ku ñàkk fayda nga amoo bàyyi li muy tekki mooy yow daal yaa ñàkk fayda mu ne ko demal ca ñaari góor ñee toog te mooy asad ibnu zurarata ak musab ibnu umayrin mu ne ko ñoom ñaar ñee dañoo ñëw ci dëkk bi ngir yàq suñu ndaw ñi ngir soppi suñu ndaw ñi yàq suñu jigéen ñi soppi suñu jigéen ñi ca la ñu nekkoon soo demee na nga leen xupp na nga leen tere ne ñoom daal lu àddina yàgg-yàgg moom buñ dugg mukk suñu kër moom moom daal buñ fuñ xam nañ jëm waaye suñu kër nag moom bu fa seen tànk xand léegi nag saadu daal wax Asyad ni ko yow de xam nga ni sama diggante ak Saad ibnu Asad nu Zurarata xam nga sama diggante ak moom ndax xam nga ni kat moom sama doomu tànta la maanaam sama yaay ju ndaw moo ko jur kon sama mbokk la mu ma xam nga ni moos duma mën a dem ci moom di ko yedd di ko tere lee mu nekk bi loolu amee Asyad ibnu Xudayrin daa di jëlee ngànnaayam daa di yore wutali Asxad ibnu Zurarata ak Musxab ibnu Umayrin bi mu ñëwee ba ci ñoom ah bi ko Asxad ibnu Zurarata séenee mu ni Musxab Umayrin kii day kilifa ci aw nitam maanaam kee daal mooy sangub aw nitam maanaam ku am baat la ci dëkk ni nga koy seeni ni su fekkee dafa ñëw fii yàlla dimbali ko ba mu gëm yàlla ah kon day nag dana dana dana baax lool ci diina ji moom qaala mus'ab ibnu umayrin in jalasa ukallimuhu mus'ab daal ni Asad ibnu Zurarata moom daal bu toogee rek danaa mën a waxante danaa mën a jokkalante kaddu dana mën a waxtaan ak moom bu toogee fa waqafa alayhima mutashattiman fa ma jaa bikuma ilayna tusaffihaani duafaana in ictazalaana in kaanat lakuma bi anfusikuma xaajatun léegi nag bi euh, asxad ibnu zurarata bi mu ñëwee euh, asid ibnu odayrin bi mu ñëwee ci asxad ibnu zurarata ak euh, musab ibnu umayrin mu daal di ni musab ni ko moom day bu toogee rek danaa waxtaan ak moom mu daal ñu moom asaat moom Asiid dafa ñu daal di taxaw Asiid ibnu Xudayr bi ñëwee dafa taxaw tiim euh, Asad ibnu Zuraarata ak Musab ibnu Umayrin mu taxaw tiim leen daal daal di wax ni wax lu ko neex ŋàññi leen dal ci seen kaw xas leen wax daal moom daal yebbeeku seen kaw ba doyal rek mu ne leen waaw yéen day dara taxu leen a ñëw ci dëkk bi lu dul soppi suñu xale yu ndaw yi soppi suñu jigéen ñi dof loo leen gëm leen loo xam ne daal ñun xamuñu ko woon lislaam lay wax mu ne leen na ngeen beru na ngeen sori fële ci àll ba su fekkente ni bii am ngeen soxla ci seen bakkan yi moom daal ba ngeen bëggee seen bakkan yi na ngeen dem ca àll ba beru ji fa loolu la أسير بن حضير لولا وقت رب بمتيمي مصحب بن عمير نيو مدير نجري جانجل القرآن وانا عندونا نياتي جم ليدي أسحاد بن زرارة رجوع مصعب بن عمير إلى مكة وجاء موسم الحج وخرج من يثرب مسلمون ومشركون ولما قدموا مكة واعد المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة ليلا بعد الثلث الأول من الليل حين أراد الله بهم من كرامته والنصر للنبي صلى الله عليه وسلم و azazil wa i'zazil islam wa ahlihi wa amarahum an la yunabbihu naiman wala yantaziruna ghaiba mbokk yi nag nii jaayante ame amee ci diggante yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak ñi ànd ak Mus'ab ibn Umayrin ko ca Yastrib ñenn nekk ay jullit ñenn ci ñoom ay jullit lañ ñeneen ñi tam nekkuñu ay jullit biñ ñëwee bul fàtte ni am nañ njëkkoon a jaayante ak yonent bi ca bayatul aqaba al ula bii mooy asaani bu ñaareel bi ñi nag biñ ñëwee ñi ngi joxante rendez-vous ak yonent bi alayhi salaatu salaam ca bayatul ca alxaqaba thaniya xaqaba ab place la bu nekk ca bitti ca bitti bi loolu amee yonent bi alayhi salaam xam nga ku ku ku am pédagogie la mën a jàngale ma daan wax ne daal buñ toogee ba mu guddi ba guddi gi sori daal nañu yolli ku ndànk ñëw ñoom ñuy bëgg gisante ak moom ndax dañoon demander audience ci yonent bi alayhi salaam mu ne buñ demee ba guddi gi sori nañ ko fekk ca Aqaba mu ni ah moom day képp kuy nelaw bu leen ko yee ba ngeen ñëw waaye nag képp ku fi nekku tam bu ko xaar moom daal ñu fi nekk te nelaw nelawuñu rek nañ ñëw ca rendez bi ca xaqaba ndax lan yàlla borom bi subhanahu wa taala moo bëgg dëgëral lislaam borom bi subhanahu wa taala moo bëgg dimbali jullit ñi borom bi subhanahu moo bëgg dimbal ab yonenteem alayhi salaatu wassalaam bi loolu amee ne bi ñëwee nekk ñoom euh, juróom-ñaar fukk ak juróom ñi foofa lañ jaayanteeg yonente bi alayhi salaatu muy ca al aqaba ñu jaayante ak moom ci ñetti yëf te moo di ni dañuy déglu yonente bi alayhi salaatu wassalaam rek saa bu joxee ndigal ñu def ko moom daal lépp lu xam ci lislaam képp ku ko xamul daañu la ko jàngal waaye nag jàngal goo xam ne dafay tege ci pédagogie dafay tege ci pédagogie yonent bi alayhi salaatu salaam te bu ñëwee Madina danañ koy sàmm danañ koy aar nañuy aare seeni alal di ko aare seeni jigéen di ko aare seeni doom danañ ko aar yonent bi yàlla bi alayhi salaatu wasalaam mbokk yi nag li rek mooy mbirum jàngale lislaam te mooy daawa woote jëmee ci lislaam ci jëfe ko laaj na ma lool maanaam laaj na nga xereñ ci ni nga koy defee laaj na nga am pédagogie lool laaj na itam nga xam fi ngay jàngale fi ngay wootee fan la nga xam réalité dëkk bi ngay woote ndax gis nga ni euh, Musab ibn Umayr dafa ñëw daal di intégré wu di dem ci tool yi toog ci penc yi ànd ak nit ñi nga xam ni dafa dugg ci biir bokk yi société bi kon nag ki bëgg jàngal nit ñi lislam war nga jaxasoo ak ñoom war nga intégré wu seen biir war nga jéem a xam itam lan mooy seen réalité ba nga mën cee tenir compte lu am solo la lu am solo ngoog mooy lan xikma bi kon nga am xereñc xam ni koy defee ñaareel bi mooy lan nga am xam-xam nga am xam-xam lislaam kenn mënu ko wooteel te amoo xam-xam su fekkee yaa ngi ko jëm a wooteel nag te amoo xam-xam la ngay yàq mu ëpp li ngay defar ndax su boobaa doo dugal waaye da ngay génnee loolu lañ seetlu bu baax a baax fi mu toll moom la ñu seetlu ci àddina bi ñu baree bari ci ñi nga pour nekk ay daaye ay duwaat di jàngale lislaam am na ci ñoo xam ni liñ yàq lislaam rëy na lool ndax méthode bi ñu jëfandikoo baaxul fa ñuy fa wootee xamuñu fan la réalité fa ñuy nekk xamuñu ko te it léeg-léeg itam waxin bi dana xaw a ñagas lool ndax olof dafay wax ni ñun olof ñun jolof-jolof dañuy wax ni macciinu dimb dana tex dana tax dimba weex maanaam macciinu dimb daal dana tax moos dimba wax waxin la dimb ab doom la am na noo ko yéeyee day wex xat am na noo ko yéeyee nag day neex ta suukar waxin la ci ni kon tam kii wax tam war na xam fi muy waxee fan la war na xam itam ñi muy waxal ñan lañ war na xam tam naka lay waxe ak ñoom lu am solo nga jànge ko ci Musab ibn Umayrin ca Yastrib ci jàngale Alqur'an ak jàngale lislaam jàng ko itam ci yonente bi alayhi salaatu salaam digganteem ak ñi nga xamante ne ñoo ànd nag mushab ñëw ca Màkka gis nga ni def leen a jox rendez ca biti dëkk ba def ak ñoom lan huis clos parce que am na loo xam ne tam dafa laaj secret bu senne du baax waaye gis nga itam wax dëgg yàlla def na ak jàppandal ndax nee na képp koy nelaw nañ ko bàyyi buñ koy yee allahu akbar képp ko dem jox soxlaam buñ ko xaar gis nga kon yëpp dafa mat bàyyi xel mooy réalité mooy réalité lu mat bàyyi xel la ci nga xamante ni dafa jóg ni dafay jàngaleel dafay tasaare lislaam wa sa ursiluhu ilaykum al an wa huwa saad bnu muxaatin ثم أقثى حربته وانصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس في ناديهم فلما نظر إليه سعد مقبلا قال أحلف بالله لقد جاءكم أسد بن حذير بغير الوجه الذي ذهب به بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم فلما وقف على الناس فلما وقف على النادي قال له سعد ما فعلت قال كلمت الرجلين فوالله ما رأيت بهما بأسا وقد نهيتهما فقال فقال نفعل ما أحببت وقد حدثت أن بني حارثة قد خرجوا إلى أسعد ليقتلوه وذلك أنهم قد عرفوا أنه ابن قالتك فقام سعد مغضبا للذي ذكر له من بني حارثة